dali nag jàmm ñu ànd yër yéene kaay ñu xëyandoo coowul suuf li nga xam ne moo dox diggante Babacar Ngom bu Sedima ak askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Ndengler ak jilaax ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xam bi na Birahim Seck bu Forum Civil ci yéene kaay gi di Dakar Times ne Babacar Ngom jël na taskatu xabaar yi gont wax lu ko neex waaye amul kenn koo xamante ni yay na ko maanaam waxi kasaw-kasaw waxi wayaa wayaa rek la Babacar Ngom doon wax maanaam nit koo xam ne jàpp na ne image am dafa yàqu mu bëggoon a defaraat image maanaam moom la askanu Sénégal lay jono woon muy wax waaye nag Babacar Ngom lenn kese maanaam jamono ji moo ko war mu jël suuf si maanaam delloo ko askan wi nga xam ne ñoo ko moom Birahim Seck ba Forum Civil ne Babacar Ngom waxam ji boo ko xoolee muy wax maanaam dafa bëgg ku ko yërëm waaye nag su nag ñenn ñoo xam ne ñoom la ñu a yërëm maanaam mooy askan wi nga xam ne dañoo bëgg a foqarti seen suufa di askan wi dëkk Ndengler yéen kaay gii di 24 heures mu ñu xamal naa ñu li am xam ne Babacar Ngom def na ko loole nag tax na askan wi dëkk ci lax ba maara day taali mer nañu lool lool lool ba ba nga xam ne ni ki suba ci dimanche ji askanu jilax ñoom danañu daal di wàcc ci mbedd mi dox doxum ñaxtu ndax ñoom nee na ñu dañoo bëgg maanaam ñu daal di leen di delloo seen suufa yéen a gi nee na Babacar Ngom ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko wax ne fay na lu toll ci seize millions ñi nga xam ne ñooy sandr gendarme yi ngir nag ñu daal di koy gardeel suufam suus nga xam ne moom la wax ne moom la amee ca ndeng leer grand place nee na déclaration boobu dafa garaaw a garaaw maanaam gendarme yi ngay wax ne ñoom nga fay seize millions ngir nag ñu daal lay saytul say tool journal bi nee na loolee maanaam war nañu ko daal di càmbar enquête yéen a kaay te xëy ci lu soxal wàllum faatu gi nañ ne covid 19 bi bi mu dikkee ci réewum ba léegi nii ñi faatu ci askan wi bari nañu lool lool lool ndax taskatu xabaar yi nga xam ne ñoo nekk ci yéen gi di enquête maanaam dem nañ ci armelu Yoff yi dem nañ ci armelu Pikine yi dem nañ ci armelu Saint-Lazare yi waaye nag la ñu fa nemmeeku maanaam weer yi ñu génn daal ñañu fay denc bari nañu lool journal bi nee na ñiy juddu di faatu tamit bëri na ak ñoo xam ne seen kër la ñuy faatoo journal bi ngi dikk na ci woppi coronavirus yi ak ñi nga xam ne ñoo ci faatu nan la waa yoof di def ba denc leen ak Saint-Lazare yéen a kaay gi xëy na ci ñëw woppi coronavirus ji tax na église bi ñoom ba léegi nii maanaam nee nañu nag seen bërëbu jaamukaay yàlla yi dañu koy tëj ba tey Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur nee na ma ngi woo askanu Sénégal ngir ñu jël seeni kay ci mbas mi ba léegi nii ma ngi ci réew mi maanaam nañuy fonk li nga xam ne moom la waa kër docteur wax yéen a kaay gi di ko du jee si yi nga xamante ni parti bii di APR daan na koy gi nee na defante bi ma ngi mel ni tulleeg màlle waaye nag du gan ci APR dañoo gis ay responsable yu mag ay kilifa ci APR maanaam di dagg sande di defante yii bu nekkul conseil des ministres yii mën naa nekk assemblée nationale yii mën naa nekk ci ay plateau télé nga gis koo xam ne ab responsable lay nekk toog ci ay rajo yàq lu mel ne xamee musiba ak mbelengaan koo xam ne moom la bokkal parti bii di APR yéen a kaay gii di la turbine mu xëy di ñu xamal naa ñu saaga yi nga xam ne Moustapha Cissé Lo saaga na ko maanaam fan yi ñu génn ak ñi nga xamante ni maanaam ñoo jël audio yi tasaare ko ci mbedd mi bay boo ñu jël seeni matukaay ndax procureur Serigne Bassirou waa section de recherche maanaam ci mbir mi nee na leen na ngeen ko lijjanti yéen a kaay gii di réew mi quotidien génne ñu réew mi yóbbu ñu ca réewum Côte d'Ivoire journal bi nee na ginnaaw bi Amadou Coulibaly génne àdduna yan jeexital la mën a am ci élection présidentielle li nga xam ne moom lañ dëgmal ca Côte d'Ivoire ndax nag xam ngeen ne Amadou Coulibaly moomu la parti au pouvoir bi tabboon na ngir nag mu nekk seen mbër ginaaw bi mu fàttoo est-ce que nag Alassane Dramane Ouattara maanaam nag du sampan ndëndëm samp laaj ndax moom Alassane Dramane Ouattara yàgg naa wax ne constitution bi may na ko mu def ñetteelu mandat ndax soo ko waxee daf lay wax ne la Henri Konan Bédié mi nga xam ne bokk na ci élection yi constitution bi ñu coppi moo ko ko may te loolu moo ma may mënti ma samp sama ñetteelu mandat journal bi nee na ñi nga xam ne ay expert lañ jëm ci wàllum chambre politique ca Côte d'Ivoire la ñu xamle mooy Alassane Dramane Ouattara mii maanaam bu sampee ndëndam du perte kenn waaye nag waxam ji bu booba cohérence du ci am ndax moo fi waxoon ne dañoo bëgg a soppi li nga xamante ni mooy politique gu maanaam nag farataa la ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi yéen a kaay gii de la turbine mu xëy di ñu xamal nañu lu jëm ci wàllum guerre wàllum corruption bi ci àdduna bi bi Sénégal ba léegi nii ma nga ci zone rouge maanaam réew yi nga xamante ni fa la bi gën a wul leen ñaaye Sénégal ma nga caa yéen a kaay gii di réew mi quotidien xëy séq waxtaan wu rëy ak ki nga xam ne mooy Pape Pape mi nekk groupe Pape et Cheikh wax na lu bare bare ci journal bi wax na ci lu jëm ci kuréel gii di Sodaaf nee na Sodaaf musique gu Sénégal bu yàqoo ba yàqu yaxet Sodaaf moo ko yàq maanaam BSDA moo sax tane woon Sodaaf ndax BSDA doona la fay ñetti yoon ci at mi waaye nag bu Sodaaf ñëwee ba léegi nii benn yoon kese la lay fay ci moytuwul du ngeen fi gis ab musicien bu gaaw a tekki ci réew mi moom Pape Cheikh wax na jaar-jaaram wax na ci seen groupe boobu lan moo tax mu yàgg wax na ñoom li nga xam ne maanaam moom la ñu joué wax na nag li nga xam ne moo ko métti ci musique bi maanaam regret yi nga xamante ne am na ko ci daat nay wax tamit ne groupe e Cheikh kenn ku nekk am nga sañ-sañ ñëw ci waaye nag kuy bokk ci groupe bi doo tux doo naan sàngara yéen a kay gi e sat mu xëy di ñu xamal ñu lu jëm ci wàllum Ligue des Champions en cas quart de finale yi ñaari match yu rëy mën naa am diggante FC Barcelone ak Bayern wala diggante Juve fu ak Real Madrid